bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi xaqa qamdihi wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa shafiina muhammadil mahdiyi salallahu alayhi wa ala alihi tayibiina tahirin wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin ginnaaw ba nu ubba ko sunu turu borom ñu ngi koy sant moom mi yeeyoo ak cant di ko ñaan mu nangul nu sunug julli mu doon julli goo xamante ne sarmadan lay doon ci sunub sang seydinaa limaamul mahdiyul muntazar sallallahu alayhi wa sallam ak njaboot geeg saxaaba yeeg ñëpp yàlla nañu ko yàlla nangul ñu ngi ñaan sunu borom sunu ndaje mi yàlla na ko yàlla boole sa ndaje mu nangu li ñu fi kar mu bari mu néew yàlla na ko yàlla ful def ko leer def ko njégal def ko yërmande jébbalal nu ko Sidi Yallaahi Oustaz Baye Moussa ak Oustaz Baara yàlla na yàlla yokk seeni i leer te taasu seen barke te yéegal leen sa alaay li yi di ñaanal sunu xalifa Seydina Mouhamadul Muxtaar ibnu Seydina ma ñoon di yeesal sunu cofeel ak sunu ziyaara ci moom ak njabootu maam Laay gépp di ñaanal xulafaawul islaam bi di nuyu mboolem ko fi teew ci góor ak jigéen waaye nañu ma may ma jagleel xasatan jëmu ju tedd ju baax ju yiw ju sell muy oustaz Baytiir di wéyjur wu baax di ko ñaanal saasu ne yàlla na yàlla sàmmal nu ko si baaxu maam Baay Laay alayhi salaatu wasalaam di rafetlu kàddu yi sii di yàlla euh, oustaz Baaba Seydi Row Rahman waaye itam ak teewaayu maam Ilimaan mi nga xamante ne moo nuy bégal saa su ne di jaajëfal bu baax itam sikarkat yi di ñaanal bu baax itam ki nga xamante ne moom mooy selu soo daan di ko ñaanal yàlla na yàlla yëkkati ko mboolem ko fi teew yàlla na yàlla faj ay xaajo zahiran wa baatinan alaay Mamadou ñu ngi jégalu bu baax amaana sax xol yi fees na ndax danaay wax ni lii yombul mooy yàlla defal la ngay nga judd ci diine di daw ci diine ba daanu ci diine yombul tey ku fi teew am na ku la manqué bi ma jullee fajar sama xel ci loolu la nekk ma ne maa ngi sant yàlla moom mi nga xamante ne mooy dogal lu ne dogal ba nag jiitu na dogal ba jiitu na lu nu man rek mooy nangu dogal bi ma ne ba moo tax dogal boobu mu daal di dogal moo waral tey jii union des jeunes Layène di jooy seen xarit ba kadi Sidi Yallaahi ma nga xamante ne moo daa toog fii di leen bëggal ci soppeem ba kay Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam maa ngi ñaan buur laaxu moom mi nga xamante ne moo amee ngërëm yàlla na ngërëmal sunu borom wàcc si siidi yàllaahi ak mboolem soppe ya jiitu mu di Baye Moussa ak Oustaz Baara moom mi nga xamante ne itam béggal na ahlu fu ne ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax ah ñu fas yéene waxtaan ak yéen nag ci comportement ndaw maanaam doxalinu ndaw ci biir société bi waaye ni ko sunub sàng Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam jàngale maam libaas ñang tënkal nu ko mu ne tàmmal nga say gune ñuy xañ ci yoonu yàlla bay mag néegatunoo bàyyi lislaam bi yaan wan yoon wi loolu moom lañu bëgg a jël faram ko waaye nag tënkuwaale nag ci sunub sang Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam moom muy maam Libaas ña ngi xool ba yàgg ne ko xam naa si say jikko ñetti téeméer kulim juum ñetti téeméer yu dul jeex ñu ne ko waaw fooyam mu ne am nga kiraama sak mbaax rëy na kulim juum rafet jikko muñ gu yaa xam-xam bu dul jeexalaay yaatu taaru tabe maandu am diine amug leer loolu lañu ñu fas yéene waxtaane tey ñu faram fàcce ko nag ci ay point yu ndaw rek ndax dañu koy tënk ñu xool sunu jamono bi ñu toll dafa am loo xamante ne moo ngi commencé di dugg ci sunu société bi mu duggee ci sunu société jaarul ci mag ñi mais dafa jaar ci ndaw ñi te ndaw ñi ñooy samaraatu diin maanaam ñooy meññetu meññantam diine meññantam diina moomu ñu xam ne ñoom bu ñu màggee ñooy taxawal diine ñu ne xaaral ñu jaar ci xale yooyu yàq leen nga gis ay xewet yu am ci ay fànn yu yéeme mu di tey dem nañu ba nga xamante ne jël nañu fowukaay yu bon yi daal di koy jagleel xale yi ñu wax ne daal xale buy teel a jaamu yàlla kooku du gudd fan maanaam xale dafa war a fo te xamuñu ne nañu ma baal ci kàddu gi xamuñu ne maanaam yàlla suy yebal ndawam di malakul mawti ci nit ñi xoolul mag xoolul ndaw kullu nafsin zaayiqatil mawt bakken bu ñam dund di nga ñam dee moo xam nga judd léegi moo xam nga yàgg fi moo xam nga am dix ans moo xam loo mënti am dafa di sa àpp jot rek nga dem kon ñu dellu tënkuwaat ci jàngale Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xamante ne dafa jël ndaw tey bu ñu demee ba ba tubaab yi naan droit de l'enfant bu fekkee ne boobu Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam jox na leen seen ay ax ak seen yelleef wax leen seen taxawaay ci société bi waaye wax leen seen taxawaay ci diina ji mu ne daal ndaw li ko war mooy dafay sàkku li nga xamante ne mooy yiw dafay bëgg lu baax dafay bëgg lu rafet dafay bëgg ab yiw xubbul xayr bëgg baax boobu bala bëgg yiw boobu bokk na ci nga xañcu yoon yàlla naka la ñuy xañcoo yoonu yàlla mu ne bu ngeen di dem ca jàkk ya yóbbaale leen seen ay doom ma al xilmaanu musdaximi ànd ak xale yi ñuy woy buuxante ci biir jàkk ji waaye fexe leen ba ñoom ñooñu xale yi bu ñu demee ba ci biir jàkkee na nga leen leen teg foo xamante ne du ñu perturber ci jàkk ji loolu moo waral jàngale boobu mu ne na ngeen fexe ba ndaw ñi na ngeen def si ñoom li nga xamante ne mooy kersa ginnaaw bu ñu bëggee lu baax bu ñu ginnaaw bu ñu xañtoo lu baax fexe leen ba ñu am kersa ndax kers su dañee ci nit rekk ngëmam dañ na laa li liman laa xayaa lahu yeneen bi nee na kii nga xamante ne lii nekkatul ci moom mu ne ngëmam dañ na ci moom ñu nekk lan la mu ne mooy kersa mu ne kersa bu dañee bu dañee ci ndaw mu ne ndaw loolu gëmatul daray diine gëmatul yàlla gëmatul yeneen bi gëmatul len ndax bu boobaa mooy waral day def lu ko neex waaw am ay saay-saay soo xamante ne nag nee nañu dañuy fexe ba ndaw ñi ñu daal di dindi si ñoom kersa def ci ñoom li nga xamante ne moom mooy ak mbonte mbonte gi bokk na ci jikko yi may bëgg lim mooy al ujb al riyaau al xish alkasal mu ne bi ci njëkk mooy aaw aaw mooy naw sa jëf dangay dem ba yow xale bi dangay def li ngay def ba pare jàpp li ngay def mooy lii dëgg mooy lii yoon faale woo mag mu la conseillé faale woo kenn koo xamante ne mu ngi lay jàjj sa jëf daal mooy jëf ji baax léegi sax mu dem ba ànd ak li nga xamante ne mooy ak xadar defe naa tubaab di ko wax fugg ba mag muy wax ak yow sax yaa ngi jël sa loxo di dóor sa dënn di ko wan nekk dama am doole di jaayante ak moom ak ban arriya u muy ngistal xale yi yore nañ benn jikko boo xamante ne bu ñu gisee ay nit rekk yëngatu nañu ngir wane seen bopp pour gis leen ma sunu sang Seydina Alimaam alayhi salaatu wasalaam ne loolu bokkul ci diine nañu ko fi dindi ak lan tricherie man xachana fa laysa minna koo xamante ne mu ngi tricher mu ne bokkul ci ñun kon li nu mën a jànge ci wax ji mooy lii nga xamante ne mooy tricher bokkul ci li nga xamante ne mooy jàngale lislaam comportement la boo xamante ne baaxul ci ndaw ak tumalaak mag itam mu ne yamuma ci loolu danaa fexe ba ndaw ñi jalousie di dox seen ay diggante su ma gisee Seydi Rowo am dara ma ne waru ko am toog fi ma toog di yàq deram ngir mu ñaaw muy lan ki ñaan si sunuy diggante mu ne dina dinañu fexe maanaam ñi nga xamante ne ñooy ñu bon ñi dinañu fexe ba jël kiñaan def ko ci xolu xale yi walla xolu wala jikkoy xale yi ñu daal di koy làmboo sunu sang Seydina Alimaam alayhi salaatu wasalaam ne maa ngi leen di dénku si ngeen bàyyi li nga xamante ne mooy iñaan maa ngi leen di dénku ngeen def seen ay diggante li nga xamante ne mooy cofeel ak mbëggeel ngeen yenante lu baax li nga yéene sa bopp nga daal di koy yéene sa mbokkum jullit ndax yaakaar naa ne kenn yéenewul sa bopp lu ñaaw kenn yéenewul sa bopp li nga xamante ne mooy ak kiñaan waaye az zulmu itam muy lan ak tooñ tooñ xoolal jamono bi ñu toll damay fekk maam ilimaan mu toog jàpp ñàmburam kenn xamalu ko lenn lu bon ma ñëw daa koy tuumaal yamuma ci tuuma gi ma daa jël tuuma gi yóbbu ko tasaare ko ci àddina mu ne ñu bon ñooñu dañuy fexe ba xale yi mën a tooñ lool ittaqu zulma fa inna zulma zulumaatun yawma alqiyaamati mu ne maa ngi leen di dénk yéen ndaw ñi na ngeen bàyyi tooñ ndaxte tooñ day moom dana doon lëndëmte bésu taxawaay ba ci ki nga xamante ne mooy tooñ waaye xanaa xamu leen ne tooñkat bi lu mu mën a tooñ mën a tooñ bu tooñee koo xamante ne ñaankat la su ko ñaanalee wala ku mu mën a doon ñaan googu nekk bàyyi naa la yàlla ñaan googu du yàlla du ko téye moo tax mu wax ne ittaqu daawatul mazlum moytu leen ñaanuk aji tooñ gi ñu ne ko lu tax mu ne fa innahu laysa baynahu wa bayna laahi xijaabun digganteem ak diggante yàlla mu ne amul benn barrage bu fa dog ñaan gi day dem direct ba sunu borom sunu borom bu gisee ñaan gi dana ne ah diw moo ñaan ndax diw moo ko tooñ kon ñaan gi dama koy nangu mu ne kon na ngeen fexe ba na ngeen moytandiku li nga xamante ne mooy tooñ waaye ak lan alkasalu jamono bi ñu toll xale yi tayal nanu yaafuus nanu bëgguñoo liggéey sunu maam naay Isaa daana daan wax nañu ne li mu gënoon a bañ mooy ndaw lu am jot ndaw loo xamante ne dafa am jot sunub sang Seydina naay saa daanaka bañ ba daa tëkku sax ndaw ñi nga xamante ne maanaam waxtu liggéey da di fekk ci dëkk bi moo waraloon mu daal di ubbi ab école jël ñi nga xamante ne mënuñoo jàng ñu dem ci tool yi ñi mënta jàng ñu ut ñu jàngal leen ay métiers itam ngir rek bañ ndaw loo xamante ne dafay sàggan ci këram sunub sàng Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam mel ne dañ koo laaj na ko waaye yow sang bi ana lan nga nuy digal ñu ndaw ñi mu ne li ma leen di digal lu njëkk lenn la naka lan mu ne duumu alal xushu'i wal xudu'i sax leen ci li nga xamante ne mooy ragal yàlla fexe leen ba nangeen ko def ci seen bopp na ngeen ko def ci seen xol yi nangeen ko def ci seen yaram yi maanaam jikko woo leen ko ñu ne ko fa na yem mu ne déedéet wa ak li nga xamante ne mooy suufeel seen bopp seetlul bu baax maam Ilimaan ndaw luy doog a jug moom pour moom bu àddina doon wàcc moom mën na ko téye gisatul déggatul gumba na tëx na luuna faaleetul kenn kuy dax ci kaw suuf surtout ndaw loo xamante ne am na doole moom pour moom lu taxaw ci kanamam da ko war a fàdd sunu sang Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ne suufeel leen seen bopp waaye nag am na jikko yoo xamante ne bëgguma ko gis si yéen ñu ne ko yan la mu ne maa ngi leen di dénku si ngeen bàyyi li nga xamante ne mooy ay jëw jëw bi nag jamono bi ñu toll dañ ko moderniser mooy ci réseaux sociaux yi fi ma toog laay toog yore sama portable nee naa lii lu yàqu moo ko yàq waaye tamit lu defaru moo ko defar ndax defar na ay diggante ba tàyyi mais yàq na ay diggante yoo xamante ne warul woon a yàqu ma toog fi ma toog xool awalaay ba mu neex ma ma daal di bind xam nuñ ko tuddeem kaa maanaam dañu jël jëw ak wax lu dul dëgg moderniser ko tuddee ko cas muy ñetti araf CAS cas boobu moo yàq réew mi xam nga nu mu yàq réew mi su ma bëggee anam nit ñi wuy si ma damay bind cas am na maam Ilimane su ma ko bindee rek dinaa jot cent message luy cas bi. waa xarit gaawe ma <laughs> bu ko defee nga commencé nettali ci awalaay loo xamante ne yow jubluwoo ci lu dul yàq awalaay wal xikaayati l kathira li xayri muhibbikum bàyyi laay nee na moytu leen ko bàyyi leen ko loolu dañ koy tere ci diine bokkul ci diine mu ne fexe leen ba bu mu bokk ci seeni jikko yooyu lu ngeen di nettali rek na doon lu baax lu ngeen di nettali rek na doon aw yiw itam war na mi ma ak rambaaj rambaaj mooy jaxase dafa am benn whatsapp bu fi génnoon bu tojoon réew mi itam dama ciy wax nañu ma baal mu ñu tuddee ko whatsapp prank man maay toog créer sama discussion jël profilu maam ilimaan ak profilu baara ñuy waxtaan te maam ilimaan yëgul baara yëgul wala baara mi moo koy def di wax ne maam ilimaan lay waxal di jëw Seydi Roow ñu pare mu daal di capturer image yooyu envoyé ko Seydi Roow wala mu envoyé ko xaritu Seydi Roow kooku ne woo Seydi Roow naka ah maam ilimaan li mu wax ñaaw na de nga ne ko lan la mu ne la nangam ak nangam nangam mu ne non sañu ko mu ne diw moo ma ko wax wala image yi bu ko defee yow boo nekkee nit koo xamante ne da nga oyof bopp da ngay dem nga attaqué maam Ilimaan mu ne kon rambaaj boobu fexe leen ba bu leen ci bokk tere naa leen ko na araam ci yéen ba ilaa yawmi diini mu wax naa ko léegi wal xikaayatil kathira li xeyri muhibbakum li xew ci réseaux sociaux yi ñun ñëpp gis nañ ko bàyyi laay nee na unzuru uyubakum baara xoolal say ayib wala tanzuru uyuba xeyrikum te bul xool ayibu keneen wa man araada an yuzhara uyubahu fal yunabbis uyuba xeyrihi mu ne soo bëggee say ayib feeñ na nga ayibu jàmbur boo ko defee rek keneen ku la xamal ay ayib daal di koy génne waaye itam sunu sang Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam tere nañu li nga xamante ne mooy albuxdu wal kibru maanaam nay ak li nga xamante ne mooy rëy mu ne ndaw lu du rëy lan la ñu war a uh, yittewoo mu ne yittewoo leen ci xam-xam ak liggéey ak jëf ju baax ak dox lu baax mu ne daal li ma leen mën a digal mooy mboolem lu ngeen mën ti def lu ngeen mën ti def nee na na ngeen fexe ba nangeen ngeen ko def mu sell mu yiw mu baax te ngeen am sutura itam mu ne ndaw dafay am sutura waaye ndaw du ñaaw làmmiñ nañu ma baal mu ne ndaw du reew bàyyi laay alayhi salaatu wasalaam ci gémmiñu seydi maam Alassane nee na sang bi seydina limaam alayhi salaatu wasalaam wër na aljana ba mu daj nee na gisu fa ndaw lu réew ñu nekk waaw ndaw lu réew nu muy mel mu ne boo bëggee xam ndaw lu réew nu muy mel mu ne tegal ay dàll ci buntu kër gi wala ci buntu néeg bi mu ne bu ñëwee day jaxase dàll yi ndax day reew ba du gis dàll yi sunu sang nee na ak ndaw du reew kon ci misaal li ñu mën a jàngate mooy ndaw du bon du yaafuus du am jikko joo xamante ne jikkoy soxor la li ko war daal mooy dafay liggéey dafay jàngi mécc dafay jàng euh, diine jàng nasaraan ak lu koy jëmale kanam waaye di xan ci yoonu yàlla bu mu bu mu topp caaxaankat yi naan doxal sa ndaw dox sa ndaw ci diine mooy li gën ndax di dox sa ndaw ci mbiri caaxaan ba yàlla ñëw foo jëm maa da day taali kon nañu gën a góorgóorluwaat bu baax muy man mi di wax ak ñi may déglu itam ay ndaw lañu jikko ju baax moom lañu war a làmbo jikko ju rafet moom lañu war a làmboo war nañoo am sutura waruñoo beew itam ndaw warul beew waruñoo beew waaye war nañu am worma ci sunu ay kilifa war nañu am worma ci sunu ay diggante nañuy dimbalante nañuy jàppalante nañuy épaulante bu ñu boddinte bu ñu xastante lu ma xamal nit naa ko denc maam raan daana wax naan alaay as gor biiram day nëpp waaye jamono bi ñu tol yaakaar naa ne kenn déggatul sax ënn bay dégg nëpp ndax saaku yëpp bidd na loo xamal nit wax ko fi nga toog ngay toog nit ki toog yaa ngi toog ak keneen di wax ci nit ki ba ka nga toogal fa lay jaare bañ nit kooka ba fawwa kon nañu gën a góorluwaat bu baax xam ne ay ndawub yàlla lanu yàllaanu moom keneen moomunu dañu fexe nag ba bu ñu seytaane fëx Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam dafa digal ay ndawam ñu géeju ci diini <coughs> ñu géeju ci diine lii lañu sunu sang digal maa ngi jégalawaat bu baax amaana bëggoon naa doxal thème bi comme ni ñu ko bëgg waaye sama xol wallahi lazim tey si fajar ba nii may wax maa ngi xalaat jàmbaar jooju nga xamante ne moo daa toog fii waaye itam ak sama ustaas bu tedd boobu bu nga xamante ne maa ngi koy jooy te noppeeguma muy oustaz Baara di ay dem yoo xamante ne dañu bett xëy rek ñu ne la Sidi Yalaay dem na mënuma ko miis nga xëy rek ñu ne la oustaz Baara dem na loolu moo waral ma waxe nii waaye amaana bëggoon nañu ko gën a taxaw ba nga xamante ne ku ko déglu rek dina xam ne kat ah kii wax na thème bi ni mu ni mu ware waaye daal li ñu mën a xam ne jikkooy Seydina Limaamu yooyu maam Libaas Ñang wax mu ne xam naa ci ci say jikko ñetti téeméer yu dul jeex am nga kiraama sag mbaax rëy na kon ndaw dafa war a baax dafa war a bu ko yàlla dénkee dafa war a jël kiraama jooju maanaam teddaa nga googu di ko jox jaamu yàlla yi mu ne rëy na kulim juum rafet jikko warul am jikko ju ñaaw muñ gu ñun war nañuy mën a muñ asabru diyaa u muñ lumière la kon dañu war a muñ lii lañu ñu sanub sang digal rafet jikko muñ gu yaa xam-xam bu dul jeexalaay mënuñoo dab Seydina Limaamu ci xam-xam waaye war nañ koo mën a am moo xam xam-xamu diine la moo xam-xam nasaraan la buy jariñ rafet jikko muñ gu yaa xam-xam bu dul jeexalaay mu ne yaatu taaru tabe maandu am diine amuk leer wa axiru daawaanaa ni alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim